billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi sant bu baax di suñuy tànk day fi di siyaar si sëñ sëñ Bas di sunu mbokk di sunu doomi waajur sunu kilifa sunu sëriñ fii kër gi sunu kër la daanaka amul daanaka sax sunu kër nun ñëpp sëñ Seex Abdu Xaadir moo na jox ko ak tur mook sëñ Fàllu duñ ñaar kenn nit lañ kon nag ñëw gi lu jaadu lu yam war a am lool ñu ngi sant sëñ bi bu baax ci taxawaay bi mu taxaw ci sëñ bi te nga xam ñun ñëpp la ko taxawal maanaam noppal ñëpp ndax li muy def ñun ñëpp noo ko war na seq mu taxawal na fa te taxawaay bu sëkk ñu ngi ñaan yàlla saxal ko te mu yàgg lool te yàlla defal ko ci ndam mi ngi ko yoroon def ba nga ni waaye yàlla na ko gën a yokkal ndam te yàlla musal ko ci ndog yëpp. jaar nañ ko sëñ Cheikh ak sëñ Moussa ak ñëpp ba ak fii lañ mujjee ñëw waaye uh, ñu ngi sant bu baax baax daal di leen siyaare ci bis bi ndax bisu sëñ Abdou Khadir ak sëñ Falloom duñ ñaar su wàcc sëñ Tuubaa ñëpp benn lañ waaye ñoom ñoo ci rawati nag ndax man meeg yaakaar naa ñun ñëpp fu ñu ko mos a gis mu fàttali maa la jox sa tur daal lay tudd fàttali bare bari kon nag suñu lépp benn la. Euh, am na yeneen yoo xam ne de mënu su ko wax waaye nun daal benn lan ci lépp noo bokk ci waajur góor ñoo bokk waajuru jigéen li muy taxaw noonu ñëpp la koy taxawal suñ xol sedd na ci gi mën na sëkk te euh, daan wax barab bu nekk fa mujj bu ñuy laaj moom la ñuy laaj mm-hmm. moo ñoonu mujj sëñ Tuubaa kon nag ñoonu gën a xam sëñ mu sëñ Fall doon doxee nag lañ bëgg a dox ñu lay taalibe rek lañ bëgg a doon bëgg ñoo feeñ bëgguñ kenn gis ñoo lañu xam na muñ xamee sëñ bi rek xamal na ci moo tax moom nag moo nuy feeñaaleel moo nuy doxaaleel moo nuy defal lépp te moo nu gën a jege sëñ bi nag kon nag ñu ngi sant bu baax tey léeg-léeg fi ñëw ci kër gi lu bari ay damay ñëw ba ci bunt bu xatee rek ndax yéene ji laay dawal bu magsee xawee kii ba daal di ko waat ñibbi waaye sëñ ñu fee bàyyi ñëw waxtu ñoo ngi fiy ñëw di leen nemmi ko ci ndax bokk gi ak kóllëre gi ak ndax ñun ñu bokk sëñ sëñ sëñ fàllu déedéet ñun ñu bokk sëñ fàllu sëñ bi noo jaayaale woon sëñ tuwaa bu doon caaxaan sax mu soppiku dëgg bokk ko sëñ fàllu ne jaay naa la sama jur ak jënde ko taalibe ñun ñu bokk suñu fàll waruñ ñoo xam ne dara lu ak taalibe rek moo tax nag euh, ku ñu gis nu mbokk ci nu bokkal Sëñ Tuubaa rek ab sëriñ la ñu jàppe jàppe kenn mbokk donte nag loolu yàllaa ko dogal mu nekk ci dara liñ dese ci sëñ bi daal mooy sant Mbàkke waaye li ci des lépp ak taalibe rek muy doxal oh. nag ñu ngi sant bu baax te leen ñaanal te ñaan ngeen yàgg fi lool yéen ji <clears throat> sëñ bi ah, bëggoon mu àgg ci yéen nu sëñ Abdou Xaadir bëggoon lam tàmbaloon tàggale ko yàlla ko yàlla ak ci njaboot gi yëpp te bokk fi yàgg ba ci kanam ñu gën ren ba ñu yàgg fi lool te yàlla taxaw bi ngeen taxaw siñ bi nag ak bi ngeen taxaw ci ñëpp gis nañ ko su xol sedd na ci guy ndax fu ngeen teew fu ne wala fu leen sëñ bi jëlloo kàddu da ngeen sigg siggi siggi waale ñu ci bokk ñëpp loolu nag rëy na ci lool gis nañ ko bu baax li wala fi wax naa geenum nangam gudd na waaye lu ci daal borom yëg ko bu ngeen nu gis dinaa ngi yëg lépp te ku baax ku ne sa mbokk mu neex la mm-hmm. waaye bu ñu ci waxee dara mu naqari lool kon nag waaye dégguñ dara lu ñuy wax ci yéen lu noonu kon nag na ngi sant yàlla te yàlla ñaan yàlla saxal ko bu baax du suñu àll yi ñu ko waxee rek daanaka wax ci yow wax ci suñu bopp rek la euh, suñ bi looy sàkk ci yow rek di ko sàkk ci julli yëpp ak taalibi ko ñaanal yàlla dimbale ko euh, gunge ko boppam téye ko ba dara ñu ko gàllankoor ndax li <coughs> mu yanu mbànd mi la yanu mbànd mi nag ko yanu te lépp ñëpp nekk ci war ko ñaan sa borom musal ko te dimbalee ko boppam kàttanoo ko sant nañ baax nag ndax buñ xëy ba tey mbokk yëpp ñëw ñu bokk sëñ Tuubaa kenn manqué wut dëggal lépp sëñ Tuubaa tax ngeen ko waaye moom jikko may na ko loolu ndax seq du ko ñëpp nit ñëw ba tàlle sa loxo bi ni fàllu ma kenn tàlle ni fàllu ma kenn nit ñi kenn mënu leen luyee yëg rek lañu am soo ci ñoom suñ Basiiru sas nañ la waaye sas nañu ñëpp tim nag gën a góorgóorlu baax a baax ci melokaan bii nga aw te jukko Sëñ Tuubaa moom lépp benn la lu gën a lu gën a yaatu rek ci jukko nit kooku lay doon ñu ngi lay ñaanal yàlla ba amum ndokk yàlla nga àgg fa nga jëm euh, luñ la luñ la wax ci suñu bopp lañ ko wax rek nit ki du du du wax dara ci boppam ci di waxal boppam nangam nangam loolu day mel ne kon day nul leneen euh, waaye waaye waaye si àll yi sax dañ baax daa dem ba jóg waaye fekkaat yi nga wàññi ko waat noonu ma ko waxee rek ay taalibe bi fa seen doon li ma la wax ne liñ bokk lépp xam nañ ko waaye liñ bokk lépp dañ ko jaay ñu ko taali bi damay wax ne la keroog ba Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na ko yàlla yokk yërmande ak leer moom la wax ne yaay sama làmmiñ bët yaay sama tànk yaay sama nangam lu man bi si kër laa bàyyi woon la bokk yow xool Sëñ Tuubaa moo yor moo yor mooy ndigal Sëñ Tuubaa ndigal Sëñ Tuubaa la ko képp ko la yaay sama xool kon nag yàlla yàlla musal te yàlla yàlla dimbale sëñ maa ngi ko sàkku ci yéen nga ñaanal ko li muy yokk ñëpp la ko yoral suñu borom dimbali ko te dimbali ñu ñëpp tim di sant bokk taalib yëpp tim nag ndax ñëpp teew nañ ñi sëñ Tuubaa defal seen maam ñëpp teew fi ñi ajoo ci ba maam maaram ñëpp teew nañ képp ku bëgg wax ñëw nañ fi ñi bokk tarix bi sax ñëw nañ sax ñëw nañ fi kon loolu Mbàkke yàlla na yàlla la fa cat rek li ñaan daal mënuñ ko mënuñ loolu rek lañ ci mën a wax kon ñaan ñu teew ko at yu bari rek te yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci ci ci njaboot gi yàlla suturaal ñu ñëpp rek ak Seex Xadim waaw waaw